dama ñëwoon tey fii ci suuf si tedd si si Touba ñëwoon ndokkeel si ak nuyu si suñu kilifa suñu wéyjur di suñu sëriñ kilifa ku tedd ku sell ku màgg gi euh, di Cheikh euh, Mountakha di xalifa général des Mourides ma am suñu boroom wërsëgal ma tey li bi di xat lépp euh, suñu sëriñ suñu kilifa suñu wéyjur dalal ma ñaari yoon Euh, ñaari yoon yoo xam yëpp bu ci nekk wax na ak man waxtaan ak man euh, ñaanal ma ñaanal sama délégation ñaanal FDS ci yoonam waaye ñaanal Sénégal ñaanal adduna nekkoon mbégte bu rëy rëy rëy wax dëgg yàlla waaye di ndokkeel communauté mouride yëpp euh, di màggal waaye màggal maam Cheikh Ahmadou Bamba Euh, ci liggéeyam bu rëy ci liggéeyam boo xamante ni tedd doomu aadama rek ko taxoon a jóg euh, liggéey boo xamante ni li ko taxoon a jóg mooy siggil doomu aadama siggil der bu ñuul loolu indi woon ñu fii ci tuubaa waaye bi ñu fi ñëwee ñu ñëw fi leerlu waaye ngir ñëw fi aussi sàkku fi doole yoo xamante ni dinañ ci man a sumb li nga xamante ni ci la ñu nekk muy tabaxaat Sénégal bu bees tabaxaat Sénégal bu am xar kanam bu bees ñu jàpp ni bu ñu jóge fii ci Touba di dem Dakar dinañu dellee ku doole ci biir ak ci biti yoo xamante ni sumb bi nga xamante ni sumb nañ ko ci réew mi suñu boroom borom dinañu ko mën a mottalil ndaxte kilifa ku tedd gi ci ñaanam yi am nañu yaakaar ni yéene FDS sene dina mat fii ci waaw dégg nañu Mansour Faye waxam yu ñàkki teggi yu ñàkk wekk askan wi yi nga xam ni daanaka saaga ak toroxal askan wi la mu ni moom bu ko of nag woowee du wuy ji. waaye nag ñuy wax ak président Macky Sall wax ak askanu Sénégal yëpp ñi ni jàpp nañ ni OFNAC dina def liggéeyam def liggéeyam mooy ñëpp ñi nga xamante ni laal nañ ci mbirum yorin wi nga xamante ni yore woon nañ ko 69 milliards yi nga xamante ni néew gi doole yi moo ko taxoon a jóg kuñ ci war a déglu rek dinañ la déglu waaye nag ñi ngi xaar bés bi nga xamante ni OFNAC génne na bataaxal woolu Mansour Faye ngir déglu ko bu bis boobaa bu fekkee Mansour fay déglu nangu la lank na ni du déglu ji of nag bis boobu jàpp naa ni Sénégal dina yëngu jàpp naa ni Sénégal dinañu dégg Séné jàpp naa ni àdduna dina dégg Sénégal ndax bu boobaa lépp lu ciy taxawaay rek ñu ngi ciy woo askan wi te jàpp naa ni man Mansour fay bis booba mooy nekk je pense que acte de démission de départ di gouvernement bu laajee ñu laaj leneen dinañ ko def ndax jàpp nañ ni ñàkk a askan bi la saaga Sénégal la saaga institution yi la loolu nag askan wi ñoo ko war a fajal seen bopp.